dañuy ñëw ci beneen actualité daam euh, ndax gis nañu euh, sa coow bi nga xam ne moo doxoon sa diggante ak Griff Sougou waxante ngeen lu nekk ci réseaux sociaux bi ci benn rek kàddu bu ndaw euh, mën nga ñu ñëwaatal quand même sa diggante ak Griff. très eh bien loolu moo lay wan lii mooy question te loolu moo lay wan ni man du ma nit ko bon. man dama ba bokk fu baax. maanaam gis nga ay affaire showbiz yi lii moo tax bëgguma sax di dugg ndax showbiz moo lay def looloo xam mbaam wax loolu loo xam doo ko bëgg. te man la wax dëgg yàlla Griff Sougou def na loo xam ne maanaam tey ma ni ma ñaawlu ko. ndax dama dama gis Griff bu génne euh, ci site yi wala télé yi. Mhm. di wax maa dimbali diw maa tax nit xam diw nangam sangam léegi loolu naqari ma nag ba tax ma def vidéo te Griff man waxul ak man dara wax dëgg yàlla maa ko tooñ. dama doon xool dama doon def xool boo xam li may def rafet na rek ndeket la may defa ñaaw maa ngi jéggalu nag bépp soppee daam seen boo xam ni jaara nga ci yëf yi waaw ndax ñoom xamawuñ ma ay tooñ buñ ma déggee ci coow xam nga ki la bëgg bu la déggee coow rek day ñëw rek songu du laajte sax waaw parce que Griff tamit demoon na ba wax ay wax yoo xam ci man ñoom it neexul samay fans ndax loo xam la nekkul ci man wax ko ci man tamit mais loolu lépp garaawul seytaan dafa bëri doole waaye lépp man maa tooñ waaw xam nga nee na ah. daam daf ma fekk benn ngénte di ma wayaan mayu ma ko nangam sangam yooyu yëpp jarul ne no loolu yëpp jarta nettali wax dëgg yàlla taxul ma mer xam nga mais man damay nit koo xam ne xaw ma yii barke Mouhamed xaw ma parce que après Griff wax nañ ba pare man am lu ma naqari trop après loolu boo gisee vidéo ba ma ko def sa xam ne kii da a fawaale mais ba ko dépassé waaw mi ngi noonu te xam nga pourtant dépassé wu ma ko damaa wax rek lu ma gis laa wax mais moom it ba ay mbokkam génnee wax ci moom wax dëgg yàlla laa xam ne kii nit ku baax la àdduna mm-hmm. amul solo parce que rakka ji génn wax li muy defal yaayam te man dama bëgg sama yaay ni mu yóbboo yaay màkk noonu laa yóbboo sama yaay màkk bëgguma sax di ko wax ci yi mel ni barke Mouhamed parce que bëgg naa sama yaay bëggoo xam ni bëgguma sama yaay bu ma defee sorti ba pare sama yaay laa njëkk xalaat ma ne ma faxee woo ma téléphone sama yaay bu nee ma soxla naa damay tiit du ma nelaw du am jàmm tànk que wuy juuma ko ba mu ni ma lii la bu ko defee ne man ko yaay nit ñi dañ may jaxase ak yow waxuma lii wax ji yàgg la cinquant la après gars yi dañ koo tegaat yooyu lay wax moo tax léegi bëggatuma sax di wax ci wax jàmbur ci à travers nag yéen seen site bi nga xam dafa am doole adduna bépp di ko seetaan lu fu waay wax nit ñi dégg ko nit ñi yég ko Griff Sougou man ak sama soppe yëpp ñu ngi wël lu ba tikku di la jéggalu rawatina man waaw ma ne ak non soppe yi ah. def loolu naa leen loo xam ne am na ñoo xam ne bind nañ commentaire loo xam ni wax dëgg yàlla mm. man maa tax ñu bind ko moo tax may baaluwaaleel soppe yi di leen wax ni yéen soppe yi man seen fans bii fi ngeen ma daan séentu di def sama liggéey bàyyi coow jàmbur sop moo ma ci dugal ma dem di engage jàmbur bii te defuma dara Griff maa ngi lay jéggul di la ñaan a gudd fan ak wér li ngay wut ci Amérique gépp yàlla nga ko am. xam nga wërsëg non non non diisul non diisul sax ci man ni diisul ci man billaay diisul ci man damaa xam ne àdduna amul solo mm-hmm. parce que man nit ñi bu ñuy sóor succès man dee laay sóor te yii yëpp day jeex. mais Dame tax yow euh, Griff génn wax ay waxam rek nga nga ñëw attaqué ko dugg ci gardam yow Griff lan la la wan loo xamante ni moo tax nga ñeme ko. ah dëgg fi di jaay fit gu rëy di jaay booy cees rek di bandi bandi lu nekkat du ma bandi mais rek songu girif nii laay lii la la maa mën a tooñ pourtant nag guñ nga koy xool tooñ bi du tooñ bu bu sensible quoi parce que dama doon wax sama kii rek ci girif waaw sama gis-gis fekk moom girif li waaw très bien léegi girif nee na ma mënu nga ma woo téléphone wax ma loolu ndeysaan ba ma waxee loolu sama yaram dafa daw man man damaa gaaw a rus numériquement maa ko woo téléphone man maa ko woo ma ne ko girif mun maa mun ko àdduna mu solo mm-hmm. wax dëgg yàlla xiiroo xëccoo bi maa ak yow warul ndax lii lépp ay affaire la yoo xam ci àdduna lay yem rek maa ngi tuub bu baax moom mu doon nit ku baax ndeysaan déglu ma waxtaan ak man xam nga te te incha sama bésu le quinze bi noo foog ma woo ci Griff Sougou non Griff yooyu ay maa Griff a yem rek hmm? moo ay muusu may ga lañu ñeew de ñeew duñ ko weesu ñeew hmm. benn brochette wala ñun ko càppit génn moom daal la ñuy def ci may ga bi hmm. bëri nañ xëdër xëdër nii mais ay yu ñaaw ak ay lu naqari nit rek ay luy gaañ nit sax man bëgguma ko moom xam naa ni moom it noonu la mel. Mhm. vraiment. d'accord alors yow doo génn ci coow daam ndax gis nañu bi nga génnee ci grève sa diggante ak délégué amaat daam lu ñëw sa loxo dugg ci. gis nañu yow ak délégué amaat coow lu dul jeex du xaaj wax ji daam lan la ba ba tax yow sow mu nekk rek sa ñuul a ngi ci. sama loxo ngi ci soos kay xam nga la ma indi loolu. billaay dama mënta muñ yenn bagages yi rek. moom it délégué amer moom ñu délégué ko pour délégation yi mu dem fekk ay waxi jàmbur rek ay yëfi jàmbur rek ay micro jàmbur rek lu mu gis sañ ci carax moom kooku kenn raw ko kooku moom moo raw euh, bu leetu fajar musuma gis ku mel noonu man mais kooku moom ci ñu war a déglu la bokk pourtant li ma ko wax yow ñi ngi war a déglu nga bokk yow boo bokk ci ñi war a wax ci micro yi pourtant loolu wax di. lu tax nga ne lu tax nga ne ko déglu a. ay toj toj rek ne dañ koo délégué pour délégation yi moom mu defoon nañ ne ko kaay wax man dama waaru. non micro yi léegi micro yi xam naa ne njëkk-njëkk naan oh yéen jaa parce que micro yi gars yi ak leen tifli gaa yi leen di yuut te duñ leen jox sax seen seen main d'œuvre xam ñu koy waxee per diem mais tamit gis nga Sénégal lii moo tax mu neex léegi senegal lii tax mu neex léegi léegi ñi daan maye ñooy ñaan ñi la daan baal si ñooy way ni yow <laughs> ñi nga daan yónni ñuy dem léegi ñoo la gën a riis ñoo la yónni yow ngay dem yow yónnent léegi ñi nga xam ne léegi waruñoo wax léegi ñooy wax ci place yi ñu war a wax te yéen nag yéen war a jël micro yi dem jox ko ña war a wax mi ngi mel ni rek ay. màggal tubaa ñëw nga war a laaj koo xam ne Serigne Touba moo ko ñor Serigne Touba mooy léppam Serigne Touba nanga ngeen dem jox micro yi koo xam ne day leen day wax Serigne Touba nii rek ndax da ko wax nii rek bu nit ñi seetaan nangam sangam mais du loolu parce que nga Serigne Touba ay mbiram du ay caaxaan comme ni ma ko waxee sànq rek. affaire yi foog gars yi di leen nekk ay nit quoi bàyyi bu boobeeg ay dëmm dëmm lu ñuy def ak ay affaire yu làmmiñ bu rëy ko fi jaay hmm. màggal gi bu doon ñun rek la màggal gi du taxaw di ndax ku ci def 1000 francs defa def nga lu ci ne 1000 francs da nga ci def naa noot màggal gi def naa samay taw daayira xool dañoo woote lii xoola ñu dexa sas indi naa samay kiit nga defar yow yaa tax màggal gi taxaw màggal gi nga xam ni fii nekk nekk fi sëñ Tuubaa sëñ Muntaxaa mi nga xam balaa màggal kenn indi benn picc fekk na mu def màggal gi ay milliards loolu rek mën mën a màggal màggal gi mais man daal dama man Sénégal gi ñu nekk man man léegi bu leen moo xati ay sénégalais. mais daam délégué Amar parce que yow soo toogee fii nga ne délégué Amar ci ñiy la war a bokk. Mhm. Euh, te tout le temps nga koy dégg muy def ay sorties di défendre Wally Seck wax na ni moom mooy avocat itam lépp lu xew ci réew mi délégué Amar daf ciy wax. boo taxawee tey ne délégué Amar ci kiy déglu la war a bokk da nga koy def yéen. yéen indi problème yi yéenay fekk euh, ku ne ngeen dégg ko seen micro yi. délégué Amar warul ba mu commencé wax yàggul. ba si di bari la commencé wax. xam nga ne ba fi ñetti télé nekk xaw ma ñaari télé <laughs> mosoo fa gis genre yooyu waaye mais mosoo ko gis yenn plateau ñu invité ko fi léegi nag Sénégal nag léegi boo bëree wax li li ngay wax rek noonu lu xew rek ñu dee dékk la ci réew mi de parce que nit la ci réew mi la bokk yaa ngi dégg ah. am na lu may matt fii ah quand maa ko indaal nag ndax fauteuil baakan yi moom yuy matt nekku fi maa ko indaal sama yëre njulli bii lu ne mën na cee laxas jaan sax mën na cee dugg du ma ko xam ndax maa ngi Mory Diane dëkk yaa waxuma ni amul importance de déedéet. nit la noon très bien. yow xam nga ni yow mënul wax ay erreur rek lay wax ay toccaange rek lay wax billaahi yow xam nga ni mënul wax. xam nga yéen bu nit bëree wax rek foog ngeen koy dékk micro yi pour wax pour wax ay toccaange baal woote bi may ñu ñuy ñëw tuuti. Mhm. yëre njulli nag an ah, ñu lekk téléphone ci yàlla yaa ngi dégg may ñu mhm. yaa ngi dégg yow mii xam nga ni kooku mënta wax ay toccaange rek lay wax nañu waxante dëgg rek. yéen nag yéen a bëgg yooyu kuy wax ay tojange ngeen koy tiim léegi micro yi ay délégué Amar ay Cheikh Ahmed Cissé ay daam Sène ay Paulis xam nga ñun yooyu ngeen soxla yéen ñun suñ suñu saar gi man sax mënu maa wax ah, te yéen ngi ma dékk micro non non dama ni dama ni kooku exemple boo ko joxee dama ji jiit dugalaa sama bopp non du ñeme man awma ku may tiit awma ku may ragal yàlla rek laay ragal hmm. waaw yaa ngi dégg nit ñi ci des ñëpp ay respect laa jox cër mënul wax xam naa dina génnaat wax dara parce que bëgguma ko woon sax may benn importance bi ci lu ci wax ju sew jooju ñu waxoon man ak moom dama andaloon soo ma laajatee xam duma ci wax. xam nga mais dama bëgg mu xam ni maanaam tey wax na wax joo xam ni dafa garaaw ndax dafa ni man sama sëriñ sax xamuma dégg naa loolu ci wax ji mu ne man tekkuma dara xam nga nangam ak sangam te dama soxore waal yi yooyu yëpp maa ngi koy dégg ma koy wax man waa lan laa koy soxore mm. waaw dinaa ñëw foofu ay Papa Ndiaye coppeen moo ko gën aay d'accord amul problème man na ma ñëpp gën a ay na ñëpp xew amul problème xaaral rek xaaral rek non garaawul garaawul amul problème xam nga loolu lépp boo jaaxlee rek nga koy wax wax yu wax yoo xam ne dara maîtrise woo ko ci yaa ngi dégg ay man sama sëñ xamumaak ay nangam ak sàngam ak lan ay tekkuma dara ci réew mi amul problème ay dama soxore waali waali lan laa koy soxore mm-hmm. man waali ci ñi ko gën a nangul ci li ko yàlla may man ci laa bokk ba may nangul waali moom délégué Amar mii nangulwul waali ba muy metti ca waal yu metti ya may nangul waal li ko yàlla may ndax mënuma ci dara yàllaa ko defal man waali am personne bu toogoon wax ko sax man ma mën a tiit waaye waali wax ko de moom waali wax la ko yooyu yëpp ay Pape Ndiaye coppet moo ko dàq waaye moo gën a aay amul problème man Pape Ndiaye coppet kenn mëntumaa jaxaseeg moom ci àdduna réeroo woon naag moom réeroo goo xam ni maanaam ñàkk ñàkk euh, ñàkkoon na conscient moo indi woon lépp yaa ngi dégg ak toppoon micro yi topp journaliste yi bu ñu ko laajee laaj moom wax fii wax fii wax fii ma wax fee jaar ne mais léegi deret ji daw ci Papa Ndiaye Coppet mooy daw sama deret ji Papa Ndiaye Coppet fu mu génn ñu ñu xam ni Papa Ndiaye Coppet génn di ko jaawale Dame Sène Dame Sène fu mu génn ñu xam ne Dame Sène génn di ko jaawale Papa Ndiaye Coppet léeg-léeg ma dox ñu naan ay eh, Papa Coppet ah laay wax mun ma dara ndax yàlla moo ko def non tibbuma lépp pap pap dañoo bokki bagage ñu bokk ñu ñaar fa ñuy tibbe bokk fa ñuy naane bokk fa ñuy lekke ndax ñoo bokk suñu maam bokk suñu deret ji xam nga yéen nag ku leen topp waxuma la ak Pape Ndiaye coppen mais Pape Ndiaye këf sax du ma jubóog moom waaye heureusement xa day weesu mbotee tax xale màgg na xale màgg na kenn dootuma jaxaseeg moom boo xam jooju wax ci Pape Ndiaye coppen amul problème Pape Ndiaye dama koy ñaanal yàlla guddal fanam lafal ko ca dàqal ko seetaane parce que un quelqu'un la ci àdduna bi si Sénégal yàgg bëggal sénégalais yi di def lu neex wax dëgg yàlla tey su ma demee tey bañ naan daam seen Pape Ndiaye coppe sax alhamdulilah. yaa a nangul ndax moo tax man la a ngi soog a tolloo carrière quand même léegi léegi nan lañ tollee carrière. maanaam kenn coowatul ci yéen. Ah, lamp fay na li nga wax a tax <laughs> ay lay lillah ñëw ci question boobu de mm-hmm. nga ni kenn coowatul ci ñun waaw man moom man moom <laughs> bu ñu waxul ci man sa garaawul ndax bu dul dara leer na leer na man foo toog yaa ngi fecc kii du dukuure kii ci bu rëdd ah kay loolu daa yàgg. ayca ñu ci di ñu ñëw ci yow yaa bon Pape ñi ngi koy wax ba léegi Dame Sène ñi ngi wax ba léegi te nag euh, am na loo xam mu ngi ci yoon bi mm. ci kàttanu yàlla di nga xam ba xam man artiste bu bu ñuul coow laa. voilà te wéewu ma kenn waxatu ci man ba pare nga ñëw dékk ma sa micro bi tamit ah li tamit nañ waxante dëgg. waaw mais sa duo ak ak Pam Ndiaye Coppe. sama duo ak Pam kooku man tardé wu ci man Pam Ndiaye Coppe la tardé man fu ne wax naa ko fa. Mm-hmm. Pam Ndiaye Coppe fi ne nii. mais Sénégalais pour ñu gëm dëgg ni ñàkk déggoo gi Pam Ndiaye moo may Sénégalais lu ñuy wax rek. Mm. moom moo leen ko may parce que man fu ñu ma dékkee micro maa ngi wax ci moom lu ma xam ci moom di ko ñaanal yàlla defal ko jàmm di ko woo ci duo bi boobu ba léegi déggu leen ko fenn nag moom mu wax ci affaire duo bi jot na war nañ ko mën a def nangam sangam man rek maa ci wax. man nag kon du question intéressé ñi mu intéressé bëri na. Mm. intéressé na àdduna bi yëpp duo Pape Ndiaye Coppé Dame seen kooku àddunaa ko bëgg. yaa ngi dégg loolu du dara man wàññiwuma dara Pape Ndiaye Coppé ñëw ñu duo ak ñu ñàkk mu ñàkk ñu duo non xaaral ma wax la rek. mu ñëw ñu diw ak ñu ñàkk diw wàññiwu ma dara maa ngi lekk maa ngi naan yàlla ngi may dimbali sëñ Tuubaa ngi may dimbali kon man aw ma problème non xaw ma xaw ma di wax dëgg yàlla ndax yëkkatiwul téléphone woo ma te yëkkati naa sama téléphone maintes reprises woo ko kon nag yooyu yëpp ay détails la yoo xam ne non garaawul garaawul man man amul man ak lu mu mën a jàppee rek man li ma koy jàppee mooy suma frère la moom man petit frère am laa tey jii man maay xale amul problème man war naa mën a wàcc li dara wàññiwu ma dara ba léegi maa ngi am doole ji may am maa ngi am jàmm ji may am maa ngi am wér gi may am macha allah sant yàlla te di ko ñaanal mu am jàmm am doole am wér gi ma am moom it mu koy am yàlla di ko gën a jox ay xéwal yu saawan baawan. d'accord ñëw ci euh, sa soirée bi nga xam ne yaa ngi koy wàcc muy sargal Doucouré nekk lu nga xamante ni wàccees ñëpp ñu ngi koy xaar mais man dégg naa ñu wax ni da nga def sargal. Doucouré mais Doucouré dafa jël parrain bi def ko Wally Seck est-ce est-ce que mën nga ñëwaat ci ci ci soirée boobu. lan nga ciy waaj maa organisé Doucouré organisé wul. di la la liste. waaw ah, toogal foofu yow mu ko ba mu jub wax wax ju leer leen ndànk-ndànk man maa organisé Doucouré organisé wul Doucouré dafa pauvre mu bëgg Sénégalais yi ak àdduna bi dimbali ko mais nag am na ñoo xam ñi ngi rax ci pauvreté Doucouré di ko mbubboo. te doon ay milliardaire ay waay lii ñaaw na bu la yàlla joxee ay milliards jarul ngay dem di làkk ci ginnaaw Doucouré waay naan din waaw naan din naa carte de membre Doucouré ak yooyu carte de membre benn rek la woon jaaytuñ sa carte de membre léegi Doucouré ku ko bëgg a ne dañ ko dimbali te yàlla tax ndax sonn na sonn na waaye benn vestam boobu yéen dimbali leen Doucouré milliardaires yi nekk ci àdduna bi musiciens yi mag ay Wally Seck yéen Wally sekk dimbali leen Doucouré yéen nag ah Doucouré warul toog fii moom ba moment bi ak li mu bëggal doomu aadama yi li mu daj ci àdduna bi ngir doomu aadama yi bëgg sonn bay bëgg a dee pauvre nii ah war ko dimbali ay milliardaires yi ñëw di làkk ci ginnaawam naan damaa Doucouré rek namaa nangam sax xaar le 15 le 15 les convoqués sont les convoqués le 15 sargal Doucouré Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar à la promenade des Thiessois le 15 Grand Tandibéer animé par Pape Mbaye do fils de Pape Pape Pathé Mbaye ok et les autres artistes de la région et de Dakar Tamba Kaolack Ndangaan jurbel Fatick Kaolack tous les régions léegi nag bés bi maa ngi ko tuddee Wally Ballago Seck maa ko tuddee Wally du ko tuddee ko day xëccoo kon daa joxe ma joxe lettre am dafa dem sama lettre dem léegi Wally maa ko njëkk a tuddee du ko du ko comme dafa pauvre léegi naa ko bàyyi mooy mu tuddee mu ñaari tuddee waale du ko ne laa tuddee ci côté mu tuddee sama côté ku ne enveloppe am na léegi nag waale doon koo xam sama xarit la ku nekk xam ma ni ma mel moom fii nag lay jaare wax li may wax sama digganteeg waale. di bajaan dama ko yóbbante ci waali ni ko nel waali daam seen nee na nekk fi waaye bés du kuré bi yow lu ko tuddee ay parrain bi Amady Badiane ni ma naa woo naa la woo paas la waali wa su ma la àggee wax ko waali mu defal la video gisuma vidéo gisuma appel. ma wax ko Omaro li ma wax Amady Badiane gisuma vidéo ma appel ma wax ko euh, Baye Zal gisuma vidéo gisuma appel ma wax ko Nguuda Amina gisuma vidéo gisuma appel léegi nag bés baa ngi noonu naa xaarul ba xam waali bu ñëwee bis bi dina neexam du neex mm-hmm. xam nga waali bu dikkee da ciy yokk ay xorom ndax daam moom mooy daam bu Cees ndax Waly sama nit da ba ñëpp xam ko ma bëgg rek Waly dama ko yàgg ñëwal sonn ci ay mbiram fu mu soirée ma ñëw bëf bëf naa fa nenu kanaara bëf fa nenu nag bëf fa nenu uwa bëf fa nenu euh, waxañ Waly war naa mën a ñëw nag Cees wuy sama bëf bëf waaw bu demul fenn moom dina ñëw moom xam naa moom lenn ma yëg na ko sax ne pat waxuma dara daf ma yoot xam naa dina ñëw xam naa dina ñëw léegi nag waaw bu poos bi ñëwee te Waly ñëwul man bu ñëwee ak poosam mooy ma gën a billaay moom may gënal ndax Wally ñëw dëgg la am na ñoo xam ne su ma nee yoruma numéro Wally duñ ko gëm man doyuma numéro Wally dara parce que Wally day jàpp Wally day liggéey man su ma woowee Wally lu ma ko doyee damaa bëgg nag ñi ñuy yóbbante ci Wally ñuy wax yóbbante yi Wally Wally kii daa feebar dimbali ko faj ko daam soo organisé wu la ko tuddee Wally loolu wàññiwul dara de waaye nañ koy koy wax waay léegi sama marraine mooy Fatou Kouka borom Texas foo dee ñu koy wax F Kouka hey mbay borom Texas a noonu de moom moom defar na bis bi te demaguñ fenn maa wax lii Abdoulaye Sylla waa C50 na ngeen waaj Abdoulaye Sylla ndaanaan bi nga xam président Abdoulaye Sylla moom mi nga xam ni xoolal jàppale jigéen ñi sagal ndaw ñi jàppale néew doole yi mën social moo ko tax di jog ànd ceeg nag PDG aj Guèye sama xarit boobu ñu war fas yéene jàppale Abdoulaye Sylla sii di ndaw sama transitaire bi dama ko fàtte moom mi nga xam ni wax dëgg yàlla mën na ci man lu ne sama chauffeur bii ma àndal ñu koy wax bongre kii moo tax ñuy organiser ay congrès ah sama sama adjudant bi boole maak moom muy El Hadj Diop billaahi te li muy indi Dakar ak la may delloo Thiès lépp moom léegi nag Mor Gueye sopp na bi mi nga xam ne kër yu baax yeeg teere yu baax ca Thiès moo ko yor di dimbali néew di doole di leen jox ay caabi ñuy fayee nu mu leen neexee kooku mooy Mor Gueye sopp na bi di dimbali nit di leen jàppale. waaw Cheikh Kanté mi nga xam day décanté du la escanté léegi moom lay fréquenté chéri Ami Diawara mi ma njëkk a jox oto bi ma njëkk a dawal moom Cheikh Kanté kooku mënu ma ko fàtte ci àdduna du moom du la escanté yaa ngi dégg di gis naa ko toogal rek kii moom moom lay moom lay tëjee Cheikh Kanté chéri Ami Diawara yaa ngi dégg boos ñaa ma yor mhm. restaurant bu rëy ba Jacob ba nekk Amérique mhm. di fa añee di fa reer du fay dinaan samay boisson naan samay caay du fay mhm. mbokkum ndeyu Rachid Niang mhm. ak personnel yëpp maa leen nuyoo euh, Mbodj Niang Africa restaurant Africa mhm. dama fay añee di fa reer di fa naan samay boisson du ma fay dara. da problème Alpha ca Amérique restaurant Bravo ca Bronze añ reer ndekki njogondal presque lekk banaana du fay dara. mu jàppale ma ba ma fa demee moo yëkkati xaalis bëri jox ma ma dugg ci kër fay néeg nekk sama jàmm moom Alpha chéri Aïssatou ay Kalidou maa ngi lay ziar ci Alpha Dia production mi nga xam ci labelam laa ne lu ma def studio moo koy financé ak xaalisu boppam clip bi yëpp moo koy fay ba du pro aw ma fayam doomu Louga bi ma koy ñaanal yàlla defal ko jàmm lafal ko cat ciy Badou te xale la na ngeen ko ñaanal Vieka maa ngi États-Unis moom moo nekkoon sama premier manager mais ñàkk jot a tax ma dàq ko chéri mama dàq naa ko dàq pet nag laa ko dàq waxuma ko dama laa dàq waxtaan nii man ak moom mu mel ni may ménager ba léegi fekk dàq naa ko <laughs> moo njaay États-Unis séeri mat lañ jaañ ku baax ngi nii xaritu mbër yi xaritu athlète yi xaritu karatekaay yi xaritu boxeur yi kooku mooy moo njaay Penda Cuun nag ma nga nekk Las Palmas ñuy waaj ay mbir yu doy waar foofu ca dëkk boobu duma wax gum kañ lañ balaa ñu ñëw catu fi mu ne nii cat dafa gaaw tal mel làmmiñu nit ñee gaaw mel ni Ben Johnson Penda Cuun moomu mi ngi ci ànd ak R Ramos R Ramos waaw R Ramos Thioune ak Xaali Thioune ak lamin Ba ñooñ ñi ngi wàcc ay mbir doy waar foofu te Las Palmas faama salon ba ca Amérique ñoom ñoom importance maa ngi leen nuyu ñoom jaara ca salon yi ca Amérique ñoom ñoom importance maa ngi leen di nuyu di nuyu ja moom sama coiffeur bi ak ma faal sama coiffeur bi ah, des na non kii ay liste yi daam nag mbir mi bëri na de. Mafal ngi koy nuyu di ko sant di ko gërëm Chiko ñaa maa ngi lay nuyu di la sant di la gërëm di gërëm waa Amérique yëpp Yirma o bi billaay sama rakk ji ak ñoom maam ak Ali Café ñoom ñooñu nga xam salon ba lay fréquenté ñu may jox café gu baax ñoom maam respecté ma ba dee adjudant Diop waxoon naa ko léegi maa rax loolu ibu sama tailleur bi ak laay création bi nga xam mi ngi créé loolu ba mu génnee récréation ak léegi lamin ma dëkk du tray chéri du ma ko fàtte ak baaba lii mooy liste convoqué yi nga xam ne convoqué nañ leen ci bés bu mag bi nga xam moo war a xew Thiès waaye nag Abdoulaye Sylla mm. <laughs> bu ñëwee waa Thiès xam ne Abdoulaye Sylla ñëw na may fàttali ne waa Thiès ñoom ñëpp bés bi seen bés la yéen a ma jàppale ba ma agsi fii yéen a ma dugal ne góor ma ma nekk njulli mm-hmm. fi mu ne nii nag nekk naa góor tigi dégg ngeen léegi yéen waa Thiès aw ma seen fay maa ngi leen sant maa ngi leen gërëm a ba âge ba à long âge euh, ma lan koy waxati sax man quand même <laughs> non dama ay wax may sant nag baakan kër gii ma nekk tey mooy kër baakan mm-hmm. studio bi dama ñëw am lu ma fi war mm-hmm. baakan nekk suma frère nekk nit ku baax mun naa sànq ba nga ñëw ba ñu yëg maa ngi ko wax naa ko yaa ko fi muñ mu doon nag koo xam tamit dafa eh, dafa jàppale baakan may ñaanal baakan yàlla lafal ko jàmm lafal ko cat ma ñëw fekk sama frère Pape Diouf vraiment mu doon nit ku baax ku oyof dama koy wax toujours rek mm-hmm. mbokkum day Matar Suba teel Matar Suba teel moom aw ma fayam ndax Matar suba teel da lii occasion la dama fekk benn jour Matar ma ñëw këram mu ubbil ma néegam ubbi ar yi tànn génneel ma ay affaire tànn lu la neex daal yaa ngi nii may jël ay Jordan nag lu la ma jël ko Matar suba teel mos na maa doon circulation di ma nuyu ba mbëkk jàmbur maa ko indil choc boobu de mu doon nit ku baax ku yaru ma leen di sant ñoom ñëpp ndax dañ ma am fu mu féete waaye nag ndeyu mbi gi mooy Ablaye Dieye DG AIBD ki nga xam ne Cees a ko jox bopp jox ko tànk jox ko loxo jox ko xef jox ko karaw jox ko ndong jox ko épaule jox ko ñi jox ko conc ñi jox ko ay tibiyaak ñi ay mole ñi lépp Ablaye Dieng lañ ko jox ndax ma ngay defa dëkk ba ma ngay jàppale waa dëkk ba tànkam luwul kenn dëj ngénte anniversaire euh, sortie yëpp Ablaye Dieng day ñëw loo ko woo mu wuy la xeebul kenn xeebul dara waaye nag à travers émission bi Ablaye am na benn année moo waxoon ni la yow leen rek nga ma desee defal nga ma lu ne. voiture oh, voiture de luxe oh, voiture. Ablaye Dieng yo voiture. Ablaye Cheikh Kanté jox na ma voiture. ah Tidiane ca Canada jox na ma voiture. voiture ku des voiture Ablaye Dieye sa voiture moo des ba pare nag <laughs> Ablaye Dieye xam naa lii dina ko def moom ah. sa voiture rek a des nag Ablaye ndax moom de dafa nag wutal wutal koo ñaan wutal koo ñaan bàyyi lii moo tax nag kenn du teel a jox nit ñi ndax danga naan sunu ba mu defa ni léegi ay nit ñu bari leen fekk man kese la wuy ma Ablaye Dieye Cees la boo xam ne dénk ñu ko ay vélo dénk ñu ko ay mbege dénk ñu ko ay troto ay avion roppalaan yuy naaw lañ ko dénk président xool ko wóolu ko mu doon ko jub doon gëree borom fit président jël ko la DG AIBD aéroport yi ci ad Afrique Ablaye Dieye leen di jiite yàlla nekk président maa kontaan nga waaw maa ngi tàggu ñëpp nag di santaat ñëpp di bëggee ñëpp rawatina waa Amérique yi nag di leen sant bu baax wax dëgg yàlla dañ ma bëgg bëgg goo xam ni bientôt nag maa ngi ñëwaat américain yi bëgg naa ko làkk ci anglais mais ñi lay bañ ñu xam ni yéen man dama dégg anglais parce que you came to see because man you high you come on I am come back Amérique fii comme dama fi ñëw nekkatuma no no no no black you américain no nit ku ñuul olof yi non dellu si adopté mi Dame Sène thank you sorry jaajëf merci beaucoup ñi koy sant bu baax a baax di ko jaajëfal mbégte la woon bokk ak Dame seen jotaay yaakaar naa ni nag kàddu yu nga xam ne jot nañ koo sekk amal na leen solo bu baax di ko sant bu baax di ko jaajëfal ci oyofte bi sant leen itam jaajëfal leen jox leen rendez-vous bu yàggul ci beneen daje jaa ngeen jëf